Euh, jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ngeen gisee ki ñu dalal tey nga xamante ni dalalat nañ koo xamante ni mooy sant yàlla la tuddee boppam muy borom sant yàlla nekk ku yàlla baaxal mu yëngu ci wàllu ñaan bari na ci loo xamante ni ci réew mi kum koy wax du deñ loolu nag suñ boroom moo ko defal du njàmbaaram du mën-mënam waaye suñu borom nag day fekk jaamu yàlla boo xamante ne mu ngi nii toog mu def ci moom loo xamante ne lu mu wax rek ñu gis loolu gannaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi euh, kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar.

weer hmm. waaw loolu rek a teewal day gisee ak eh, yitte ak ñi lay soxla hmm. loolu mën naa ne loolu moo tax gisu leen ma waaye eh, mam hmm. sëñ bi ñu ñëw ci tuuti eh, bu ñu delloo ginnaaw li jot a xew ci réew mi gis nga ko bari na ci loo xamante ni yaa yaa ngi ñu ci doon avertir lu mel ni fan yee gis ngeen eh, ki nga xamante ni mooy doyen des juges eh, barki dem ba gis nga génn àdduna bi nga xamante ni génn na ci àdduna yéen sëriñ si mu bari woon loo xamante ne waxoon ngeen ko ci loolu noo ko gisee ak gis-gis bi nu mu demee. defe naa ne ci sa xam-xam sorowulee dañ ci noppi. Mhm. bëri na ñu ñu ci wax naan kooku dossier boobu képp ku ci laal rek dañ la tàbbi. Mhm. te bi maanaam de euh, doyen des juges boobu. Mhm. kii faatu na dañ ko war a ñaanal yàlla. yàlla xare ko àddina te kooku ñu xam ne di ko rek yàlla la. ci wàllum dossier bi dossier boobu man maa toogoon fii tey mystique la. naan mystique la jàpp naa ne euh, mm-hmm. parce que ñi ko waroon a def moment yeeg ci dossier bi dañoo delluwaat. dëgg la bañ jógee woon dara di nga mën a xam ne kii li muy wax nii lu tegu la moom Ousmane Sonko moomu la doyen des juges li mu amee am na taxawaay bu rafet bu amal foofu ba ñoom ñaar am nañu jot a seet ba ñaar sax léegi mbirum politique la. Mhm. moo tax ñoom maaraay nañ def attention ku ci euh, mooy borom yàlla kese. Mm. wala yàllaay kese dafa bëri yoo xam ne da nga ko war a éviter ci sa bopp. Mm-hmm. parce que yàlla li mu gën a nangu si jaamu boo man yàllaay la da nga war a dëdd lii li ñuy yaa ngi dégg. Mm. dañ laa considéré fenn parce que boo bëggee toog ne yow da ngay yëkkati si deru nit ñi di ci wax lu ñaaw di ci wax loo xamante ni tey ñoom amaana seen njaboot. wala seen mm-hmm. sëñ bi ñu ñëw ci sëñ Moustapha Dramé lan la wax. ba mu ba tax nga mu metti la nii ngay wax borom yàlla gise waaw mu ne dossier bi. Mm-hmm. képp

ak lu la suñu borom mën a may may yaay xam fi hmm. parce que mbooloo bi li muy bari bari bari yëpp bul jàpp ne ñëpp lay bëgg déedéet doo mënta nekk ak a doon yaa xam borom daraja doo mën a doon ci kaw suuf. Hmm. su la ñuy bëggee am na ñu la bañ ci biir mbooloo bi. dëgg la ñii si biir mbooloo bi ñooy ñëw noonu am na si ñoo xamante ni léeg-léeg ñu ngi ay mbir ñu koy indaale. Hmm. di ko i defaale te loolu rek mën nga ko indil gàllankoor moo tax moomu ko. kon li ma koy conseil mooy mu arrière wàññi tey jii am na yeneen missi ñoo hmm. xam ne ñoo gën bon itam ñu ngi ñëw ñu ngi fii hmm. naa leen bu baax daje nañ man ñoom xamante nañ tamit bu baax waaw ma ne maa leen man si lii maa leen man si leen mais xamante nañ ñun si biir hmm. ah, ne ku nekk fa nga dëkk defe naa ne jàng dul nga ñëw ëpp la fa loxo. déedéet waaw te yaakaar naa ne ñu man bu ma xam lenn li di ko seetaan. Mm-hmm. tant que man may doomu réew mi incha allah du ma seetaan benn benn marabu di jugee si àll bi di ñëw fii defi def naa si gis naa fi nag ay yenn mara yu ñu ne dañuy defar xaalis am nañ ñoo xam xamante ne moom fii si Tëngéej yaakaar naa ne moom dootuñu ko dooleel jërëjëf boobu lañ gàddu seen bagage yi ñu. moo jëflante ak ñoom. parce que dañuy ñëw mais dañuy defal nit ñi xaalis. man sama jëmm boobu man sama part personnelle yabaluma ma def defaral. defar ma yàlla lu mu kii ma yàlla rabu dëkk bi moom Kumba laa mbay si jëflante moom am na jëf mu tax. Mhm. rabu dëkk bi maam Kumba Lambaay lan la jox ak lan nga ko jox. jëfuñu ki la jiitu ak ki xam sa juddu maam. Mhm. kooku mënoo ko woon jiitoo da mënoo fexe ba dab ki la jiitu te sama takk der su ma ko wanee ginnaaw mënoo ko fexe ba dab loolu moo tax te ñun dañ xam wàllu rab kooku loolu suñu borom la. mu mhm. ñu cere la loolu bu ñun kii sant yàlla amul kii kenn rek am. Mhm. rek bi sama waati wala ak borom mbaal. ndeysaan. moo tax ñun lépp mën naa leen bëri na tey ci si géej suñu borom xéwal nañu si dara xéwal bépp mm-hmm. bi ñu ñëw sëñ bi ñu ñëw ci wàllu euh, faj. ndax yow ku ci ne xam na ni ci wàllu faj lañ la xamee ngay faj ñi nga xamante ni duñoo dañoo tële ñi nga xamante ne maanaam seen yaram daa sutante ñi nga xamante ne dañ leen a liggéey wala ñu leen di sànni kott léegi dañ koy commencé ci wàllu tële ndax dëkk bi léegi bari na ci xale yu góor yoo xamante ni koo ci laaj rek mu ne la man damaa wàll tële ci wàllu ngóor loolu lan moo koy def def def la walla feebar la wala lekk bu bon la. war a téye sa bopp yaa ngi dégg. Mm-hmm. parce que góor am na fu koy soxnaam di soxlaa jigéen tamit am na fu koy borom këram di soxla mm-hmm. waaye loolu yéen bu ngeen ko foxee ba nekk ba am jabar ku ci nekk soxla sa morom li nga bëgg sa morom amoo ko kii def li nga bëgg sa morom amoo ko bu ko defee jaxasoo day am. Mm-hmm. kii lay dem naan damay wari kàttan kii lay dem naan damay delloo sama bopp dara. fekk tax yow yaa caaxaan si bopp ci àddina. ci àddina bu dee suñu maam yi ngóor yi ñu fi bàyyi ngóor yooyu kii am ngóor la ñuy jox ngóor. Mm-hmm. am ngóor kooku lañ mën a jox ngóor yokkal mais kii amul ngóor kooku la kenn mën ko yokkal ngóor. déedéet. parce que kii kii damm. Mm-hmm. kooku kenn du ko seetal doole. Mm-hmm. kii damm boo ko boo koy si àddina mënoo ko seetal doole. déedéet. da nga koy gën a paralyser. yaa ngi dégg. moo kii amul góor kooku mënoo wax wax wax ci kaw suuf. Mhm. ba doole ko loolu suñu maam yi bi ñu ko fi bàyyi loolu moo taxaw mais bu koo xamante ni dafa caaxaane boppam caaxaane boppam. Mhm. tas. Mhm. ba chronique. ba soxla bëri si yaram moom mu ne ñu bëgg a seeti góor. kooku ci kaw suuf bépp maara bu taxaw. wala bépp ñaankat bu ne la mën na laa doole góor a jàpp ne dalay day lekk sa xaalis. maanaam mën a faj ba ba ba loolu deñ. waaw bu dee si lu mel ni télé. télé sans dépend. bëri na góor yoo xamante ni ñu ngi dugg ci jigéen dañ koy bëgg a xemmeem ko dañ xam jigéen ñi ñuy dugg. Mm-hmm. kan la. Mm-hmm. yaa ngi dégg parce que am na jigéen yoo xam ne ñoom ci famille ceddo lañ bokk. Mm-hmm. dafa bari famille ceddo yi. dañoo tas léegi ci réew mi bari te góor ñi dañuy gën a xemmeem jigéen ñi la te jigéen ñi ñuy xemmeem majeure partie bi yëpp. ay dañoo ànd ak seytaan lu ñu naan kii ceddo affaire ceddo yooyu man laa ne. affaire euh, tooñaat ka dëmmee. Mm-hmm. yaa ngi dégg affaire dëmm yooyu daf si bari. Mm-hmm. si ay jigéenam. Mm-hmm. léegi yow tey jii nga dugg si jigéen jigéen boobu nga dugg seetaluñ la ko xamoo ci moom dara tey jii moom moom mën na la nattoo loolu. muy ci wàllu wërsëg ci ay wàllu feebar yi sax bëri na sax même bu dul tële mën na la bàyyi feebar boo xamante ni day dox sa yaram comme a gunóor lay doon. wala sax muy dox wala walax jaan. mi ngi effectivement sa ngóor mu di ko delloo. bari na wàllu télé. télé tamit day boo xam ne kooku suñu borom moo teg jaamam bi. parce que bëgg jaamam dañ naan wëliw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. euh, bi ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy daanaka moom la réew mi ñëpp di gis ci ci wàllu tey romb ci selebe yoon gis ñu teg fa ay nen ay xaatim ay suukar affaire yooyu loolu lan la ndax des fois gis ku mel ni

selaw yooyu nga fekk ko hmm. ñoo xamante ni yoo xamante ni ma defoon hmm. mu hmm. yow liggéey bi nga xam ne dañ ko def ci yow danga koy dindi teg ko ci sele ba yoon bu ko kàggu muy jógewaatee feebar bi dal ci kàggu. ndeysaan. Hmm. Hmm. wala ci digg

jaaree fu mu war a jaar yaramam bi day sab mhm. dañ ko ci xiir wala boo xam dina ko bëma benn nit yàlla day ñëw rek bëma pour mu bañ a jaar foofu mais bu boo nekkee benn nit da benn sa bopp jël sa bopp jégal ko seetaan jégal seetaan bi maanaam nekk ci xale yi di fo fo macha allah yaakaar ne loolu waaye na ko suñu borom da lay seetaan sago suñu da lay dem lay muur tey musiba buy ñëw sa waxuma musiba bu yow rek. loolu bu gën a day ñëw ci yow. dëgg la. doomu aadama dafa war a tere boppam. Hmm. avant ñu koy pare ñu ngi jàpp ne liggéey liggéey déedéet doomu aadama avant ñu koy liggéey doomu aadama ñi ko mën a liggéey ñii rek la. Hmm. ay mbokkam. Hmm. ay mbokkam mbokkam li ñu bëri yëpp ci la doomu baayam. yaayam laala yaayam ak doomu baayam. ñoo la mën a liggéey. pour mu hmm. Hmm. a ñaar ñaar ñaar ñaar ñi rek ñoo mën a bokkal ndey mën na laa mën na laa jàpp. déedéet dégg am na solo sëñ bi ñu ñëw ci euh, fan yee am na sorti boo def am ñenn ci sëriñ si woo la la ba tëkku sax ba ne dina dina jël sa bakkan loolu mën nga ñu ko expliquer nu mu demee woon ak yow ak sa diggante kan la woon. waaw. Euh, dëgg la bëgguma jëndi tamit. Mhm. damay bëgg ñuy wax direct ñuy leer nga xam ne yow laay wax loo may wax ma nga wax ma ko ma gàddu ko c'est man jàpp naa ne ñun maa laay fii ci réew mi ŋàññante lañ man dañuy ŋàññante parce que mënuñu defante lu bon bu fekkee ñoom dara desul nag lu dul defante lu bon ku ci nekk xam nga sa bopp te bu mu weetee xam nga ni sa morom capable foofu te bu njëkkaan ñun suñuy maam daaw ñu nekk seen ŋàññante wax. soo defee loolu dañu naan nañ dajee fii si kaw tëkkuma wooma mais moom eh, dinañ la tàggee gannaaw loolu gannaaw ñu ñëw ci tàgge bi yow lan nga wax ba ñu lan nga wax ci moom waaw dama ne àdduna nit boo nekkee ci mbir hmm. yàlla di nga ne yàlla da la ngay faj ay nit ci anam boo xamante ni ku ko gis du ko rafetlu yaakaar naa ne danga ko war a rafetal di faj nit surtout jigéen nga koy faj nga film yenn cëram di génn si public kooku boo koy fajee billaahi juróom-ñaari at du wér jinne ku mu dugg nii lay mel jinne ku mu dugg dëgg-dëgg nii lay mel da lay jàpp weñ la weñ sa biir bi damaa ngi jégalu si dama ci lii nii may wane nii. Hmm. xam naa ne du sama cër mais dama ko bëgg a xamal ne rek comme jinne jàpp naka lay mel. noonu lay mel. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dama ko mm-hmm. léegi d'accord léegi nga ñëwaat ci moom bi nga waxee loolu euh, bi mu la woowee lan la la wax. moom moo la woo wala. waxtu bi ci la nga gis xaw ma intention yow di seet si yow bës bu dee bës. man maa ngi sant yàlla bu baax a baax a xaw ma sax luy bës. yaa ngi dégg waaye yow suñ tur nga ko rek yow si ngeen parce que yéen da ngeen di jaar si comédien yi pour am jëli seen tur. comédien yooyu yéen a leen war a mën a may tur. mais yéen ci comédien yi ngeen di jaar pour mën a am tur mu waat mu ne ma man ci kàttanu yàlla. dinañu du ma ko yeewu. doo yeewu ci guddi guddi la la woon wala bëccëg. ay ngoon mi boobu def naa ay waxtu rek. ñu mhm. déglu. Mhm. ma waat si yàlla ma ne. nekk mhm. billaahi wallaahi wal kitaabi gëj naa nelaw ba bëgg mais tey dinaa nelaw nelaw nelaw nelaw nelaw ba biddanti. suma jigéen dinaa la woo. dërëm du ma wokk te du ma laal dara guddi googu man guddi tey bi du ma laal kurus du ma dugg ci samay mbir dara du ma ko laal damay sama gën tëdd ma ko. la sax maa ngi jégalu waa sama yéene bi ñu ma santoon seen liggéey man ah, parce que moom doo ma jox seen liggéey am ñoom dañ may dugaloo dañ may jox seen i topp ay kilo ba fii. dama defal ko maa ngi leen si jégalu sax ñoom it parce que mën naa ne kilo biir boobu ma si kenn. parce que dama jiw waru ma waroon toog. dama waroon def sama liggéey rek bàyyi ko mais dama ko topp la. mais après moom bu ma xëyee ma jël. dama ko loolu ñun ñu defal ko suñuy biir. Mm-hmm. du ma dugg kenn du ma ne kenn dinaa la def wala dinaa la def. Mm-hmm. mais si kàttanu yàlla ja billaahi wallaahi wal kitaabi laa wax bu dee lu ñuy def rek la si lu bon su ma la fanaanalee su ma la fanaanalee billaahi wallaahi wal kitaabi di nga mere doo mënoon toog wala di nga di nga mere sa bopp yow loolu la mënoon naa du ma dugg kenn. Mm-hmm. du ma dugg kenn ma boo demoon fa ma nekk ca léeg wallahi am na solo euh, li nga wax noonu ci sëriñ si dañuy ñëw tuuti ci sa mbokki sëriñ si nga xamante ne saa su ne ñu ngi leen di bàkkee turu dóor koo wax ñu ne la sëriñ si day dóor barki démb am na ku fi dalaloon euh, sëñ Messi la Euh, sëñ monsieur le Diop euh, mu nekk ñaankat seetaan nga émission bi gis li mu ci wax yëpp ci wàllub sëriñ. kooku boobu dañuy sant ci émission boobu. Mm-hmm. dégg kàddu yi rafetlu ko lool allah fa ma nekkoon fële sax ci làkkat yi ñoo nga xam ne naan lañ sax les gens ñu dootee ñëw xam nga ñoom il faut wax ji dañ leen koy traduire. Mm-hmm. moo tax sëriñ si bëri dañu war a bàyyi xel ne ñoom wax yëngu fii ci biir yow yëngu tamit. si ñi nga xam ne ñooy ay doomi Sénégal wala ñuy biir wala si mm-hmm. ñoo xam ne ay laajkat lañ wax yi dañ leen koy traduire mm-hmm. pour ñuy mën a seetaan émission yi mm-hmm. ñu dégloo kii émission ndeysaan macha allah ñu rafetlu ko ñu ne kii kàddoom bi day rafetlu yaa ngi dégg moo tax ñun suñu biir dañuy bàyyi xel dañuy bàyyi xel même kilifa yi sax dañuy seetal émission bu mujj bi ci benn baat rek benn kilifa bu mag ndeysaan yónnee addiya yu bëri dama rafetlu naa émission bi si benn kàddu boo jëmal sëriñ si benn kàddu rek boo ma jëmalee sëriñ. léegi mhm. sa àddee jox ko mu ci waa àddee yooyu ne ko boo demee ma jox ko man ñaan gi ma ñaanal rek à histoire. parce que ñun sëriñ dañu war a xoolaat suñ toogaay ñi man nag ñi man wallaahi billaahi ñu ngi man ba tey. Mhm. yaa ngi dégg ñi di man. Mhm. ñu ngi man ba tey ñi umpale nag ñu ngi umpale. te fii mën naa ne tey jii ñi ci umpale dafa bari. Mhm. parce que dafa bëri man mën naa jàppale naa ne war la sant na su ay sëriñ. Mhm. ñoo xam dañ yebbi duñ ci bàyyi xel ki day nekk seytaan ñëw toog ak yebbi la da ngay indi dara rek fekk boobu yàq na la. Mhm. yow sëriñ fekk ko seytaane boobu yàq na la wala ñu indi la seen doom wala ñu indi la keneen. weccoo la yow fay la bor xam nga tey seytaane moom dafa day war a fay yaayam ba mu fay papa léegi yow sëriñ bi nag bu fekkee ñun dañuy ñëw nga xam ne yow mii koy boobu moom dara nekk fi da ngaa dëgër fi rek yow la ñuy jël yebbi la fayee la weccee la fay ko. seen doom bu fekkoon moom la ñu waroon a fay kooku dee i yaay dee yow sëriñ bi moo tax fi mu toll nii sëriñ yi ñu am problème da ngay gis si sëriñ bi génnee fii si dëkk bi. dem ngeen ñu ñaata sëriñ ñoo ma fekkee ci àll bi ñaata sëriñ am na koo xamante ni bi ñu jógee di dem soo jënd kër xarit fële Mali. Mhm. am nañu toog ba ci suba bi man dem Maroc jógee Maroc. yàlla mhm. Mali. sama mhm. xarit boobu ndeysaan yàlla def na ma dem ko rek fekk fa benn maara te moom bu waxee bu doxuloo bi bu doxuloo ba wane benn baat rek moom moom moom lay xaar xam naa moom ah kooku sëriñ si mag la bu mag la. yor seeni YouTube. buy ñaanal ay nit di ko génnee ci vidéo. bu eh. eh. ndeysaan. yéen yi ma soxla na dafa taw ba ci fii Medina mbir yi gi am na ñu ñuy toog ba jënd lekk ñoom toog ak ñoom ci mbedd bi. ñu lekk lekk ba ci yàlla mais bi fekk mu si ay nitam nitu yàlla waliw wala xale. Mm-hmm. mu am ñu jaarale si kaw nag dama wër bàjj si moom mu toog toog mu toog ba pare ndogu mu ne ma xamu ku la jur de te nàmpal jigéen ku la jur. te mm-hmm. nàmpal kooku am barke man ki am ki am barke kenn rek la. ci mm-hmm. dégg kàddu yàlla yi te ñu ko jëfe wallaay moom moom soxna soxna. sëñ bi ñoom sëriñ si ñu bàyyi xel ci lu bari lu bari loolu laa bëgg ñu waxtaan ci li njëkk mooy sëñ bi samp nit nan lañ koy sampee ak kan la samp ak kat moo war a samp. Euh, dama bëgg euh, comme par exemple artiste laa. Mm-hmm. artiste comédien laa dama bëgg nga samp ko mën naa ne la laaj benn yére. benn yére. su may def samp ko comme deret suba mu mel ni si deret. Mm-hmm. wala dama koy liggéey ci anam boobu. Mm-hmm. bu moom ci laa koy def. wala la. dinaa la jox la lii day naan ko. yaa ngi dégg. lii boo ko naanee loo wax mu neex

naanee géej laalit tey lan mooy laalit laalit mooy lan. tojub jinax la. tojub jinax. tojub jinax loolu léegi yi ñoo koy xam <laughs> tojub jinax. ay sëñ mm-hmm. ci digg géej dugal mm-hmm. ci loolu laa bëgg a ñëw nit ku nekk ak sampam lan moo tax samp commencé ci nag commencé ci xar commencé ci bëy ginaar dinañ ci samp. waaw léegi ki néew doole ak ki am doole ñoo yem même nu ñu leen di sampee. mi mhm. ngi ajoo maire dafa xew temps de élection locale yi ngi ñëw de. ñu ngi ci heure bi samp yi mhm. euh, mhm. borom borom ndomba tànk yi. Mhm, actuellement nii am na ci mbër yoo xam ne yaa ngi leen di samp nii. Euh, n'est-ce ah, mhm. pas waaw wan nga ma mbër moo xam ne mbër mu mag la de. ku mag a mag la ci làmb. bëri mhm. sëriñ mhm. kon sëriñ dina nekk kurce ñëw ci yow ne moom mooy ñaanal mbër mi ñëw ci yow nga ñaanal ko mu jël dem jox mbër mi. moom sëriñ bi ci boppam. Mhm. moom sëriñ day doon. Mhm. sëriñ day doon am loo xamante ni moom foo mu doole ko. Mhm. yaa ngi dégg. parce du mbër di nga ko di nga ko di nga ko ba benn moment nga xam ne kii de su ma seetu renfort dina ñàkk parce que sëriñ day ko léegi dina bëgg mbër. yaa ngi dégg sëriñ. mbër nit dina ñëw si nga bëgg ko tey jii man yow mën nga ñëw ma bëgg la. di sonn si yow loolu dëgg la. Hmm? du sëriñ kese dañu war moom lañu am na lu ñu wax suñu borom. mooy def si ñoom bay rek. Hmm. foo mën a dem ci kaw si dañuy bëgg loolu loolu alhamdulilah doo utiliser dara mais dañuy bëgg kilifa boo mën a toog da lay bëgg da lay attiré si bopp parce que kooku suñu borom moo koy def si te doo doon dara. Hmm. moo tax day am te ay mbëgg dafa am ci ay mbëgg mu ngi yow la ñun sëriñ da leen di bëgg mu jaralee lu nekk koy def. moom loo moom loo boo xoolee. te comme mooy lii mën mm-hmm. mm-hmm. ci moom Reug Reug. ay sëriñam moo xam moom xam nga. billaahi laa wax ci ay sëriñ su koy ñaanal yoo xamante ni Reug sax xamu Mhm. def juróom benn at ci àll. juróom benn weer ci àll ngir ngemb kese. te kon Reug actuellement mun naa ni kon mbër yi ëpp ngemb ci làmb moo Reug ci la hmm. ko. jël ci payal ko jëlee ñu may hmm. gisee moom mi xamante ne moom mooy war a laaleeg rëg-rëg ci wàllu mystique moom it. ah foofu réer mais gis nga seen jàqarloo barki démb fële ca TFM euh, ñoom ñaar gis naa mystique yu bari mais sëñ bi dafa am loo xamante ni faw ma laaj la ko munoo fee jug munoo fee toog ba jóg dem te duma la ko laaj Reug Reug bi muy dugg si ci bunt bi ay bekk suukar lañ fa teg juróom ñaari bekk suukar oto bi jaar ci. dugg guy gi bi muy dugg si gis naa ay poftan gis naa ñu sànni foofu ay jën euh, bekk suukar yi tegtalu lan la. waaw bu dee mm-hmm. moom suukar. Mm-hmm.

sànni ko foofu ay jën yu bari jën lan la imp. Mhm. Mhm. Mhm. surtout bu fekkee yabee. soog mm-hmm. mm. mm. mooy lan def accident ci géej mooy soog ñaata yoon moom la dikkee mënul géej def accident ci géej mucc accident bu njëkk bi dellu silma nu mu demee woon

teg seen loxo te du benn sax ñetti nit. loolu de bu ko wax dina la kooku noonu xoolal ay mbir moo tax souvent man su ma gisee ku naan yow alaka ma yow ku def juróom juróomi ñoom soog ci géej kon est-ce que tal na alalu kooku soxla dara so est-ce que kooku soxla ko li ñu yitewoo ko est-ce que yitewoo la wallaay boo demee fële ci lëbu yi hmm. dëgg la. Mhm. am na solo sëñ bi xam naa ni li wolof naan lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin wi e, dañuy jox di dig daje rek ba ëllëg lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga koo wax. réew. dañuy lekk suñu xaalis. Mhm. mais tamit ñoom it seen biir ñoom laay wax. waa bitim réew. waaw lan nga wax seen biir. parce ñoom dañuy yàqante seen biir. ñoom waa bitim réew. waaw dañuy yàqante seen biir. ci nan gis nit nit nekk ci place. Mhm. doo wala nit nga war nga ko jéem a xañ. Mm-hmm. ci bari ñoom dañuy yàqam seen biir. Mm-hmm. ñu ci yàlla di kay mooy ñi nga xamante ni ñoom dañuy waajal seen bopp moo tax li ma leen di wax mooy bu ngeen ñëwee di waajal seen bopp kon fi ngeen di dugg waajal seen bopp bu baax ba nga xamante ni bu ngeen demee du du jaar day nekk fii seen xaalis naan ndax nañ ma lekk xaalis yéen seen bopp yéen. yéen a bokk ndey ak waaw mais mais sëriñ bi bari na ñoo xamante ne ñu ngi bitim réew nee nañ dañuy yónnee seen xaalis mais ñi ngi koy yónnee sëriñ si après boo leen woowee doo leen jot. waaw léegi loolu ci ñoom la xam nga mu nekkee si ñoom. Mm-hmm. parce que bari na si euh, ay nit ñoo xamante ne dañuy bokkandoo benn liggéey. Mm-hmm. ay nit mm-hmm. dafa nekk ak moromam. benn bërëb mu ne ma kii dama bëgg muy jub ci bërëb bi. Mhm. wala mu gën a féete kaw. ma ne yow li nga wax ne moom dafay waati mu ne ma loolu laa bëgg xam nga lu ma ko si tegal. Mhm. ma ne gis nga gis nga moom nécessité ma ne ko yaay ku baax mu ne ma boo ko mën sa morom mën na bëri na ci yoo xamante ne loolu moo koy indi. parce que ñu mhm. ko woon keneen da lay laaj sa xaalis ba pare te du la faata waaw bu dee koo xam dafa doylu dara fukkut boobu dëgg dara jiitalu ko kooku du faalu loolu maa ngi di waxaale tamit comme ñi nga xam ne sama mbokku sëriñ ci nga xamante ne ñu ngi ku ci nekk yaa ngi wax sa xalaat buñ di fàtte ñi nga xamante ne ñu ngi ci géej gi ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci jaww ji ak teer bi yaa ngi dégg ak nawet bi. nawet bi ñëw xëy na ñu jàpp ñu sànni ñu ci gàddu. Mm-hmm. ndax nawet bu ren bi dina neex am du neex. Mm-hmm. sama mbokku béykat yi ci na ba mais bii ñu jëm nii yàlla ci taw ay taw yu gën ci ñun. Mm-hmm. Euh, ñu am ci mbéy yu baax. Mm-hmm. incha allah ñi ci géej gi yàlla natal géej gi incha mm-hmm. ñu ci jëriñ tamit yàlla di leen defal jàmm incha allah. dinañ jox di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ci réew mi jàmm. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen waxtaan bu am solo boobu nga xam ne euh, borom sant yàlla def na ko mu doon message yoo xamante ne ku ci nekk mën na ci am njariñ ñu yëngu ci wàllu politique moo xam nga yëngu ci làmb moo xam nga bëgg a samp moom nag ci mbir moomu lay yëngu moom sant yàlla ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalaloon nañ ko ko fii ci wasaare TV ñu leen di jaajëfal di leen tàggu ci tàggoo bi dul tàqaliko di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf